ci ñaari xew-xew yi nga xam ne benn bi weesu nañ ko bi ci des ñu ngi nii dëgmal ko bi ñu weesu mooy bis bi ñu doon santale Cheikhul Khadim boroomam muy màggalug tuuba ñu ci ndokkeel mbokki jullit yëpp ak mbokki taalibe yëpp euh, rawatina ak Cheikh Mouhamadinil taxa mi nga xam ne moo nekk ci bopp njabootu Cheikhul xaddiim di ñaan suñu borom mu yàgg fi lool te wér ak mbooleem njabootu Cheikhul Khadim gi yëpp di ci mbokkee ndokkeel al alamul islami ñëpp ndax bis la boo xam ne julliti àddina bi yëpp ñoo ko bokk kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di ñaan mbooleem luñ ci def ci santale Serigne Touba boromam suñu boroom nangu ko te mu doon mbégum sëriñ bi waaye itam di leen ndokkeel itam ci weeru màgg wi ñu tàbbi muy chahru rabiul awal di weeru gàmmu di weer woo xam ne bokk na ci weer yi nga xam ne ñoo gën a màgg ci at mi ndax ci la euh, sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane àddina euh, di weer woo xam ne weeru jullit ñi la kon ñu ngi ciy ndokkeel mbooleem jullit ñi di ci ndokkeel itam mbooleem murit yi ndax amuñu lu ëpp weer woowu ndax kii suñu yaakaar tey ak ëllëg muy cheikhul xadim euh, yonent bi salaay salaam rek moom la doon roy moom la dëgmaloon moom la tegoon bët kon ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax a baax ci ñaari xew-xew yooyu ba tax na sax loolu moo waral jataayub tey bii ngir waajal xew-xew bu mag boobu di guddi gane ak àddina ak sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral ñu amal jataay bii tey fii ci jumaay tuuba ngir waxtaane lu ci jëm di ci dalal yi nag ay boroomi xam-xam ay kilifa yoo xam ne seeni yëngatu ak seeni gëstu jëm na ci fànn googu jëm na ci diine lislaam waaye jëm na ci njàngaleem Cheikhul Khadim euh, di ci njëkk a dalal rek di ci nuyu Serigne Maam Balla Mbacke Maxtaar moom di boroom xam-xam di gëstukat di ko xam ne toolub xam-xam bii mi ngi ci bay waaru am solo yaakaar naa jëratul sax présenté ndax ñëpp xam nañ ko ci tool bi ci ay yëngutoom lu jëm ci wàllu xam-xam lu jëm ci wàllu gëstu ci mbindum sëriñ bi ak njàngaleem sëriñ bi kon ñu jox ko rek mu nuyoo sëriñ Maam Balla ñu ngi lay nuyu asalaamaaleykum. bismillahi rahmaani rahiim alhamdulilahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala ashrafil mursaliin sayyidina muhammadin amiin wa ala aalihi wa sahbihi ajmaiin asalaamaaleykum wa Euh, bokk yi ñuy seetaan ñu ngi leen di nuyu leen ziar leen ndokkeel ci euh, leen ba di euh, am mbégte lool ci teew ci jataay bi ànd ko kilifa yu tedd yi ni ko sëñ Ablaye waxee léegi ñu di ko delloo nuyoo yi di ko yóbbante nuyu ci mbokk yëpp rek waa mbooloo mi nga xam ne moom mu xadamatu xidma nga xam ni ñoom ñi ngi taxaw taxawaay bu am solo lool ci liggéeyu sëriñ bi ci fànn yëpp ñu leen ci ndokkeel ñoom bu baax dem mbégte ci fas naa leen bi rek ñu noonu ko waxee fas yéene jéem a euh, waxtaan ci waajtaayu bisu rasulullahi sallallahu alayhi mooy ñëw muy gàmmu ci ci ci ñaan sama borom def na ci tawféex ba lu ñu fax rek muy lu am njëriñ. jërëjëf sëñ Mame la ci nuyoo bu am solo bi nga xam ne euh, yëkkati nga ko jëme ko ci mbokk yi ñuy seetaan waaye itam ñu ngi feggoo ak koo xam ne moom itam li ma waxoon ci sëñ Mame Balla Mbacke Moxtaar moom laay wax ci moom. Euh, borom xam-xam la gëstukat la ku mën a tasaare njàngaleem Cheikhul Khadim la muy sëriñ Abdoul Abdoul Ahad Bousso moom sëriñ bu Bousso moom sëriñ bu so sëriñ Abdoul Ahad ñu ngi lay nuyu nga bàyyi ñu bàyyi la nga nuyoon ak téléspectateurs yi. aouzu billahi min asheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi wasalaatu wasalaamu ala wa ala alihi wa ashaabihi wa mawala mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñi ngi nuyu mbokk yi ñuy seetaan yépp eh, di leen ndokkeel ak fuñ ñu mën a nekk ci àddina bi ci biir réew mi ak ci bitim réew di jiital ci nuyoo bi mu Cheikh Mouhamadul Mountakha di ko ñaanal suñu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu mbokk yi ñu seqal jataay bi di sëriñ Mame bal mbakke mi ngi xam ne teew na fi di borom xam-xam di gëstukat ab sëriñ Ablaye di leen nuyu bu baax a baax di am mbégte ci bokk ak yéen jataay bi rawatina tamit. Euh, modéré gi nga xam ne yaa ngi koy modéré euh, dana gën a taaral jataay bi muy lu am solo ñu ngi nuy bokki téléspectateurs yëpp ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan ak fu ñu mën a nekk ci àddina euh, bi di leen ndokkeel ci weeru tedd bi. jërëjëf sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno ci kaddu yu am solo yooyu nuyoo bu am solo bi nga jëmee ci téléspectateurs yi xam nga ne nag jataay bi suñu boolee ñaari borom xam-xam yii am na lu muy wundu li muy wund mooy sëriñ Maam Balla Mbakke mais di membre ci daairatu Rawdu Rayaahiin di kuréel gu mag goog nga xam ne ñoom la sëriñ bi dénk lépp lu aju ci wàllu xam-xam ci dëkk bi ñu di ko taxawee taxawin wu rafet macha allah nga xam ne kuréel googu ba mu sosoo ba léegi bari na lu lu yokk ci tasaare njàngaleem sëriñ Touba ci seeni loxo la jaar ñu leen ci jaajëfal bu baax a baax moom mu teew ci seen tur waaye sëriñ Abdoul Ahad Bousso Thierno bi itam nag doon ku jiite commission kulturel ci daayira muxaddamatul xidma bii nekk ci jumaay Touba moom itam mu teewal fi daayira muxaddamatul xidma kon ñaari jëmm yooyu am na lu muy firndeel li muy firndeel mooy barab bii di jumaay Touba sëriñ bi joxe fi ndigal ñu fiy dundal guddi gàmmu ci loxol ñaari kuréel yooyu la ko teg ba loolu moo sabab ñoom seen ñaari jëmm yi teew fi tey ngir waxtaanee. gàmm googu ak lu ci aju kon sëñ Abdou Lahad Bousso nag may may rek ma tàmbalee ak sëriñ Maam Balla Mbàkke Moxtaar waxtaan wi sëriñ Maam Balla ni ñu ko waxee ci njëlbeen gi ñu ngi ci dëgmal guddi gàmm di guddi gi nga xam ne ci la suñu sang ba euh, Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane àddina di guddi goo xam ne guddi mbégte la ci mbooleem al ummatul islaamiya euh, ngir nag waxtaane ko dana laaj ñu tàmbalee ci solo solo si nga xam ne gàmmu am na ko solo si nga xamante ni gàmmu am na ko laaj na ñu xam ko ak lu tax ñu di ko ñu war koo dundal loolu mooy laaj bu njëkk bi lan mooy solo si nga xam ne gàmmu am na ko ak lu waral ñu ñu jullit ñi ñu war koo dundal guddi gi nga xam ne ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam gane àddina Euh, jërëjëf sëriñ Ablaye jërëjëf sëriñ Abdou Lahad euh, dafay mel ni gàmmu nag solo moom mm, lu feeñ la ci diine euh, pour ñu xam ne solo fis na mooy dañuy xam na mooy gàmm d'abord lan mooy gàmm luy gàmm gàmm mooy fàttaliku juddu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen ji bindéef kooku nga xam ni moo sauvé l'humanité moo xetti li nit ñi euh, bis bi mu gënewul àdduna la mag ñi jël euh, di ko fàttaliku bu ñëwee ñu ciy nafar dundam gu sell googee dundam goo nga xam ni euh, nafar ga dafa nekk lu war lu jaadu kon bu ñu bëggoon a tax gàmm dañ naa gàmm mooy di fàttaliku juddu Yonent bi waaye di ci waxtaane ak dundam taarixam ay jaay jaaram ak ak ak sisiraam di waxtaane askanamu teddoo nga xam ni donte askan sax moom nit du ko fàggul boppam waaye euh, des na ko manes na ko fàggul waaye di waxtaane itam euh, bindam bu laab jëmmam ju laab ju taaru jooju den te jëmm sax nit mënu ko wutal itam nit mën na ko toppatoo mën na ko saytu euh, waaye di waxtaane itam jikkoom yooyu nga xam ni daanaka nag moo nu booleeg moom ndax dañ ko caa war a roy kon gàmm mooy di waxtaane dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ay ibadaatam ay ak ak ak ak ak ak i njàngaleem ak léppam su ko defee loolu nag solo si muy am si yëmblaay euh, day feeñ bu ñu xamee lan muy gàmm dañu xam solo si bu ñu xamee ni gàmm mooy waxtaane dundu yonent bi sallallahu alayhi ci ci ci ci ci jawaani bi yëpp solo sa day daal di feeñ la ca jiitu mooy daañ ca daanu dimbali ngir ñu mën koo roy ndax dañ ko war roy koo war a roy nag ci sa lépp da nga war a xam léppam kon gàmm benn la ci occasion yi nga xam ni dañ ci profité jullit yi di fàttaliku dunduk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne moom dañ koo woon di fàttaliku bis bu ne ni ko suñ tubaab moom moom bis yëpp gàmm la bis yëpp ndax euh, ci digganteem ak borom digganteem ak euh, boppam digganteem ak euh, jullit yi mu àndaloon digganteem ak njabootam digganteem ak sax ñi ko gëmul ba ci digganteem ak Euh, bàyyi may ak mbindee fi sama borom yëpp euh, alaaxa bu am bu ne ci diggante euh, digganteem ak ak ak ak ak yàlla mbindee fi sama borom ñun loolu lañ ko war a xam ndax nam ci doon jëflante ñun noonu lañu ñu war a jëflante ñun ni mu doon defee jëflante ak boromam ñun noonu a jëf suñu borom ni mu doon jëflanteeg ak boppam nun noonu la ñu war bopp ni mu doon jëflante ak ak ak ak ñi ko gëm topp ko muy saxaaba yi di julli di noonu la ñu war a jëflante ñoom ni mu doon jëflante yéefar yi noonu la ñu doon jëflante yéefar ba ci bindee fi bàyyi ma yi ak ñi euh, mu doon jëflante ñoom ñun noonu la ñu doon jëflante kon xam dundam gi du doy doon lu mënta ak ñun mm-hmm. loolu nag gàmm occasion la boo xam ne daf nuy dimbali ci ngir ñoom man man mën a xam bu ñu mën a xam lépp tam ñu xam ca lu bare bare bare loo xam ni euh, dañu mën dimbali kon bi njëkk a ci solos gàmm wala njariñam wala meññ bokk na ca dañuy dimbali ñu gën a xam sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam te xam nga daa mënta ñàkk nag ci ñun ndax moom lañ war a wax su ñuy yëngu ak suñuy dal ak suñu lépp bokk na ca itam yi tax ñuy gàmmu te mu am te mu jox ko solo euh, di bokk ci meññat mi wala liñ ci jariñoo euh, fàttaliku ngëneelam yi moom sallallahu alayhi ak ak ak darajaam yi ak tedd ngaam yi day day day day jëmbat ak cofeel di ko suuxat ci xolu jullit ku lu ñu xamal la Seydina Ahmad mooy kan euh, jikkoom melokaanam jëflanteem ak ci lépp dafay dimbali nga gën koo sopp bu fekkee amoo woon dara ca cofeelam dana ko jëmbat sab xol bu fekkee amoon nga sax dana ko suuxat te nag euh, cofeel googee nag dafay loo xam daf ñuy dimbali itam ci ñu topp gi ñu ko topp ndax moom li ñu bokk ak moom mooy weesu topp dañ ko topp cofeel gi nag day tax dañuy dimbali ñu gën ko mën a topp ngir ñu mën ko jox xaqam dëgg ci topp gi euh, cofeel gi li jox euh, euh, alxalaaqatu bayna al mahabati wa taa wa taa xalaaqa tardiya la lu cofeel gën a dolli ko rek topp gi gën a gën a gën a gën a dolli ko ah. kon luñ ko gën a bëgg dafa ñuy gën dimbali ñu gën ko mën a topp ci topp sunaam sa dëgg-dëgg topp moo tax nga gis ma mën a ba ci suñu euh, dundi aada yi sax rek boo xoolee nit ñi kenn ku ne la nga la la ñor yitteel la daanaka fa sa fa ci sa bëgg toll rek fa la ci sa yittey toll boo gisee gone yi itam di jël gaal yi dem Europe da nga gis koo xam ne ci teg teg ba kanam ma nit ñi li ñu sàkku ci àdduna rek kenn ku ne am na lu ma la jaral euh, loola mooy bëgg ga ñu moo leen di yóbbe ci ah, ku am lu mu la jaral kon euh, ginnaaw ñu li sàkk ya tax yàlla sàkk ñoom ñu nu jaamu ko loolee moom moo ko jàngale ci moom lañ ko war a royee ci lépp ndax loolu mooy li mat a ñàkk sunu dund kon moom moom lu ñu ko gën a bëgg du doy ndax moo ñuy dimbali ñu gën koo mën a topp gën koo mën a roy gën a mën a euh, gën a mën a jeexit xenc ay jeexitam te loolu itam mooy li suñu borom sant ndax euh, yàlla nee na topp leen euh, yàlla topp yonent bi atiiwu Allaah wa atiiwu rasul waxaat nag koo topp yàlla topp nga ko man ñu teex la man ñu teex rasul faqad ataa kon day mel ni topp yàlla moom mënut am topp yonent bi amul ginnaaw topp yàlla moom mënut am topp yonent bi amul nag ku topp yàlla koy topp yonent bi topp day mel ni topp yàlla maanaam maanaam xam yonent bi di ko topp ak bëgg ko dañuy dimbali ñu gën ko mën a topp loolu day nekk loo xam ne day nekk suñu waajaata kon ni topp yàlla ni topp yonent noonu la bëgg ko gàmm na dafa bokk ci yi tax ñu bëgg yonent bi ndax ci la ñuy waxtaane ay ay ay ay jaar jaam ay jeexitam ak ak ak jikkoom ci melokaan yoo xam ni am na ci wax ne bu ñu ko wax sax da nga def utopie la da nga lu mënta te lu lu lu nekkoon la moom noonu ko doon dundee malgré jafe-jafe yam doon dund yëpp euh, bokk na ci ñoo xam tam euh, xam nga topp yàlla mooy topp yonent maanaam euh, yàlla ci boppam daf ni yonent bi sallallaahu alayhi su suñ xul ngeen toxi ba daal fattabi'uuni su ngeen bëggee yàlla neen bu ñu bëggee nañ la topp bu ñu leen toppee lu ci jur yàlla bëgg leen li ñu war fii daa bëgg buur buur bëgg la moo gën maanaam maanaam yàlla pour mu sopp jaam bi mi ngi ko teg ci mu topp yonent bi sallallahu alayhi kon topp yonent sallallahu alayhi dafay dafa dafa dafa maanaam topp gi dafay lu mënta ñàkk ñun suñ lépp da cee ne la tax ñu gën ko mën topp dëgg-dëgg mooy tax ñu bëgg ko la ñu bëgg ko dëgg-dëgg nag mooy ñu di ko waxtaane ñuy xam jikkoom yu uh, uh, tedd kon ndax sopp sopp yàlla ci lépp ne maanaam yàlla ne bu ngeen ma soppee topp leent bi danaa leen sopp man maanaam sopp yàlla ci lépp ne maanaam yàlla su la bëggee moom maanaam sa sa maanaam texee ak ak ak ak fajug aajoog lépp ci loolu la ne ndax am na xadis xutsi bi wax ni euh, jaam bi du dañ di ma jaamu di ma gën a jige ci yi ma farataal yi ma sunal ci moom ba bëgg ko su ma ko bëggee rek maay doon lépp kun sama la euh, li muy dégg man man rek lay dégg ci man lay dégg lu muy dégg ci man la jaa dégg ko maay gisam bi muy gisee lu muy gis ci man la jaar maay loxoom bi muy jëfandikoo maay tànkam bi muy doxe maanaam nga xam boo dee jaamu yàlla di jaamu ba àgg ci yàlla bëgg la moom mooy doon sa lépp moo lay féeti fépp jàpp da nga ko jàpp ngir yàlla looy bàyyi jàng nga xam sa dara dootu neen sa lépp ixtisaab lay doon sa lépp ixtisaab lay doon mu ne nag soo eggee foofu lu muy jëflante moom su ma laajee ma jox ko uh-huh. uh, in sa'alanii laa u'tiyannahu lu ma laaj rek ma laaj koy jox wa isa staxfara li axfir la axfiranna la saa yu ma jégloo ba jégal ko wa isa staazani aatu nee na kooka day egg ci su ma laajee ma jox ko su ma jégloo ma jég su musuloo ma musal ko loolu nag daraja bu du ko weesu maanaam maanaam teraanga mënta weesu loolu te loolu ñu ngi ko amee ci yàlla sopp la yàlla sopp la yaa koy amee ci ba ko soppee nga topp rasulullah sallallahu alayhi mm. topp rasulullah sallallahu alayhi nag Euh, lay tax mu mu mu mu neex dëgg mu jàpp dëgg mu seel dëgg mooy nga bëgg ko bëgg ga nag lay tax moom hmm. euh, ñu di ko waxtaane moo tax aarifuuna billaahi saalikuuna ñoom euh, seen diine moom lu ñuy wax diin diin diinul maxaba la ñuy wax diin diin diinu kenn ki naa diinu bi diinul maxaba te loolu defe naa wax na ci lu bëree bëri loo xam ne xam naa dañ jëf ñoo ñëw ci loolu sax moo fi nga toll dafa am solo ndax wax nga ne gàmm mooy fàttaliku juddu yonent bi salaay sallam waxtaane ko dana waral ñu sopp ko te bu ñu ko soppee moo ñuy jural ñu topp ko wa in tutiuhu kon dafa mel ne samara li ñu war a jële ci gàmm mooy ah, soppeeku topp yoon wi nga xam ne moom la yonent bi salaay sallam jàngale melokaan yi nga xamante nii moom lañ ñu jàngaloon ci gàmm bu ñu jógee ci gàmm dañoo war a soppeeku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam meloon wala déet. waaw ah, jërëjëf sëñ Ablaye waaw euh, mel ni loolu moo doon li ndax yàlla jaamu yàlla yi mu tëral yëpp dafa am lu tax. Hmm. Euh, kutiba alaykum as-siyaam kamaa kutiba alal laziina min qablikum la'allakum tattaquun tattaquun hmm. wa tazawwadu fa inna zaadi taqwa maanaam jaamu yàlla yi inna salaata tanhaa anil fahshaa'i wal munkar maanaam jaamu yàlla dëgg-dëgg li muy moom mooy ñu ñu jube ci ñu ñu ñu baaxee ci. ñu defaroo ci gàmm it wax dëgg bi ko mag ñi tëral loolu moo tax na jóg mm-hmm. la taxoon mag ñi di ko woote tey da ci doon da ci nekkoon na ci wala mi ngi ci mi ngi ci nekk ba sax tam mi ngi ci mi ngi ñu di ci defaroo euh, di fa jële ji ay bind euh, di di di di di di déglu dundu yonent nga xam ne yonent bi nii la laabiire woon xoola xoola lii xew tey ci jamono ci defanteeg ñàkkante yi mm-hmm. ci lu kenn xamul nga xam ne maanaam yow da ngay def nit dara ba noppi ngeen toog nanga met nga réccu la nga ko defoon yow bu ko effacé waat mm-hmm. gis nañ fii kilifa dal ci kaw kilifa wala nit dal ci kaw nit ñu jëflante nga gis ka ka ka amoon doole doon néewal doole wëlbati ko mel ni kuy jéem a réparé euh, te loolu bu ñu jàngoon yi ni sox daanaka bu ñu egg mm-hmm. nit ñëw na di tibb mbalit wala ay ay ay ay ay ay sobe di ko tuur ci yoonam mu di ko teggi moom ay fan gis gisatu ñu tuur foofa mu laaj waa ana soxna si daa tuur fii mbalit ma ana ki daa tuur mbalit mi ñu ne ko kooku de daa mel yaram daa libbat mhm. mu ko macha allah kooku daa tuub <laughs> ni ki yonent yàlla oh. mhm. maanaam fi ne lim tuubal ci ci jikko tuubalu ko ci ci ci ci jaasi wala ci forcé oh. man ne jikko jaa rafetoon ba maanaam ku ko xam na nga ko sopp boo ko fréquenté nga xam ne kii nit ko mm. baax a ngi nit ki mm. la ne woon ci moom ci ci ci ci lewet ci njéggal maanaam ci woyof ci ci ci baax mbaax maanaam mbaax nga mooy eggoon foo xam ni mbaax ko ku nekk ci yow ku nekk ku la noosoo rek bëgg la. xataa musrikuun yi nga xam ne sax ay noonam lañu woon nanguloon nañ ko loolu ci jikko yu rafet. ndax njëggal gaag bari njëriñ gaag sutura ga maam da ngay nekk ak moom mu gis sa awra yow yaa ngi saa ko xam ne yaa ngi yaa ngi lu ñu taw awra bëgg ko feeñal. Mm-hmm. moom sa awra ne fang mu di ko nëbb. mu la koy nëbbal da xam ne kii man man la doomu aadama njëriñ rek la bëgg nit njëriñ dong la bëgg fi mu ne fu ñu mën di jëm seen njëriñ dong la ñuy wër fu ñu gis lu baax lu neex ci ñoom ñu innahu li hubbil xayr la shadid ah. saa yoo amee xayru rek moom dañ lay fréquenté boo gisee suñu tubaab la tax ni meloon nga xam ne ni ko sëñ Mouhamed Lim Diop wax ne fu mu musaa day mel yoonu marché bu demoon ci gott ba fu mu ne day mel yoon ma nga xam ne mm-hmm. seel yi day seel yoon la ñëpp jëm ko njariñ lu bari la mm-hmm. ak ak ak ak mbaax ga nga xam ne dafa landi mm-hmm. gone ga jigéen ja mag ma ndaw ma ndaw xarit ba noon ba soppi ba mën a ñëpp fekk seen compte ci moom mhm. ñëpp fekk seen njëriñ ci moom te daanaka du amul du lor kon Seydina Muhammad loolu la doon jàngale loolu na wax yàlla bu ko waxtaanee ba noppi itam li ci am solo mooy ñu di ko roy nag ñu di ko roy dëgg yàlla war nañ koo roy bu baax nag fii nu toll euh, surtout ñun julli yi nga xam ne daa am ñu ko séqal euh, te xëy na ñoom amuñu loolu nu am nun nu mën leen a nu war leen ci jàppale baaxe leen ci kon nañ jiit suñu bopp ci gàmmu loolu di meññan mi te mooy meññan mu xam rasulullah sallallahu alayhi wasallam waaye bëgg ko <clears throat> nañu fexe ba di ko jeexital bépp jullit boo xam ne gàmmu ji nga wala nga gàmmu wala nga teewee ko wala ak fu man doon ba gàmmu jeex te yëgoo ni gën ngaa xam yonent bi yëgoo ni gën nga koo sopp xoolaatal sa gàmm. yëgoo nga. ah ndax boo boo xam gën koo sopp. faw ak soppi ko am soppi ko ah, ndax ak laabiir ak ak ak ak ak lewet ak woyof ak ak bari njariñ man day bari yu ne ci yow man jikko yi fa nga jël ca dara jikkoom yu bari yooyu kuñ ko waxtaanee jàngal la ko ba nga xam nga xam ni ci lii la nekkoon moo ko may lii mu am te lii mu am ni mu ko bëggee nga ko am ni mu ko amee ko nga ko bëggee maanaam ni ko bëggee maanaam uh, amee nga ko bëgg amee war naa sof ci yow dara. moo tax suñu borom ah. subhaanahu wa taala bi ñu koy porteel. Hmm. porteel ñu ko ci juddu wala ci askan. waaye la innaka la ala wa innaka la ala xuluqin azim. Hmm. waaw wa in kunta fazzan xalisal xalbi lan faddu min xawlik jikko yu rafet yooyu la ñu portrait ci moom bëggoon ñu roy ci moom. loolu rek ah, ci anam yëpp nag boo xoolee digganteem ak soxnaam digganteem bil mu'minin raufun rahim xarisun aleykum bil mu'minin raufun rahim mm. man dafa amoon yërmande ci njaboot gi yërmande maanaam kilifa li gën moom mu yërëm njabootam. Mm-hmm. njaboot gi soo leen yërëmee ba ñu yëg ni yërëm nga leen di toggoo lu metti ngir ñoom pour nga jubbante leen dañuy am kersa man a sa kilifa bu la rusee di la toggool yenn nii da ngay dem da nga am keres sax ah, di jëf yenn yow itam ah, te loolu doon nañu ko jeexite itam ak ci xeetu jikko yëpp nag maanaam xeetu jikko yëpp boo xool rek day mel ni alxuraan eh, li ñu wax naa gàmm <laughs> li li li Sëñ Tuubaa naa fa kayfa tamdahu xalqun wa xaaliquhu ajramtidaa ajramtidaa loo fi ma kam soori nee nag kenn mënu ko tàgg tàggu sax suñu borom <laughs> yow mi ko bind di ko tagg yàlla ma ko bind tàgg na ko te fa mu ko tàgg mooy fa gën a kawe <laughs> foofu sax foofu sax laa bëggoon ñu ñëw fi euh, tuuti bala maa ñëw ci sëñ Abdou Lahad euh, tudd nga ko léegi mooy sëriñ bi nag moom ñëpp xam nañ ne ku fonkoon weeru gàmm la ku fonkoon gàmm la yamaluwu ko dara loolu itam bëgg nañ nga ñëwal ñu ci tuuti bala ñoo ñëw ci Sëñ Lahad Bousso Thierno sëriñ bi nu mu fonke woon gàmm ak ban ban yitte la ko joxoon. waaw xam sëriñ moom bëgg bëgg yoon saw daf cee dofoon. Mhm. liñ naa lu mag bëgg dof ca am na nettali bu ñuy nettali daañu dégg ñu ko nettali naa daa am daa am bis am mel ni daa am lu mu lu mu lu mu santaane daal. waaye ñam ko doon wax daa mel ni kii ñu ko ndax xëy na kakk leen ko wax wala ci fam nem la leen ko wax tax. Oh. am jëmmi jamono mu laaj lu mel noonu waaye ñu ni ci yàlla mel ni daal xam naa taxatuñu kii ko mu menuisier gu leen nax ci man ba tey mm-hmm. menuisier lu nag menuisier gu leen nax ci man ba tey mën di solee ko ma ñu tax ma nangu moo ngi dee xisa boobu ñu daa deet li bu njëkk bi ñu ko dañ ko dégg ñu mm-hmm. am na waa ju daa jaay Euh, resto damay jaay resool mu ne woo leen ko mu ñëw lu muy jaay mu jënd resool mu jënd ko waaw ah, maanaam maanaam maanaam dafa eggoon ci bëgg resool alayhi salaam ba xam ne xarixtu fi bahri mahabbati nabi maanaam euh, daa nañ ko laaj naari gànnaar yi ngay jox sal waaye moom xeesal yoonu njañ rek ni hmm. sharif la du lijjanti waaw ah, man du lijjanti maanaam boo nee sëttu rasul alayhi salaam rek moom moom maanaam yonent bi la bëgg bëgg goo xam ne dafa nangoon ñu nax ko ci hmm. bëggam googee nag moo ko yóbboon ci moom dundam gépp boo xoolee ci xasida yi daanaka ni mu feesal lépp gàmm la salaatu sitta mat sitta tati bata maat saay euh, julli ci moom ak di ko tagg moo doon ab liggéeyam boo demee euh, weer yu mu judd maanaam rabiix lim ci tënk ci xasida kenn xamantul maanaam euh, yowul mawlidi lim ci tënk maanaam loolu laal ci yëntu sasaram aw turam ay ay turam sax laay wax mm-hmm. ak ak ak lu jigee rek jël na euh, jumla yooyu tëgg ci ay xasida yu bare bari yoo xam ne lu lu rafet lu baax lu ne askan na ko yónni sallallahu alayhi ne doon na ko ci moom lu ne doon ko ci moom euh, kon kooku mu dama ñu foog boo xoolee gàmm it ni mu ni boo demee ci jës bi nga xam ne euh, moom sëñ Laat ñu jàng ci bis bi nga xam moom moom defe naa sëñ Laat dinañ ñëw ci wàllu jës boo xoolee dama cay waxe dañuy gis daanaka naka lañu ñu war a gàmmoo naka la ñu gàmmoo naka la ñu gàmmoo mawliduhu muazzam dafa wax gàmm mawluduhu muazzam mu muhtaram ta'zimuhu mu nee na juddoom googee lu ñu màggal la lu barkeel lu ñu warmaal la maanaam maanaam melokaan lu wax mooy loolu mm-hmm. lépp loo xam ne lu màgg la am barke ñu di ko warmaal maanaam loolu moom mooy mooy mooy lu wax mm-hmm. ndax borom sootaan la euh, boo gisee ñu xëy na gàmmu lu tax ñu di ko def euh, yàlla ci boppam dafa wut ay ay ay ay ay jëmm warmaal leen yonent yi wala lii ak ñeneen wut ay barab warmaal leen nga gis màkk Medina yeneen barab ma wut ay jamono warmaal leen boo xoolee yooyu muy warmaal nag da ak xew xeloon ah. buy màggal euh, bi gis ni jaam yàlla gu mag moo ci jeex kon guddi gi nga xam ne ci la ngën ji mbindeef juddoo kooku ëpp lu ko mm-hmm. te mu ne ñu xam dama xurumaat yi maanaam dafa fees ak moo tax Sëriñ Tuubaa ni bis boobu ci warma yi la bokk lu màgg la lu barkeel lu normal la egg ñu ne tanzimuhu yanhatim maanaam dafa àgg sax nag màggal ko daa war nag daa war daa war nga xam ne kon moom wax na màggal mooy maanaam gàmmu dayo bi waxit ko ko màggal lam lay jural fukk fa ma ñu wax di mawlida nabi na babil huda fakka sahin sahida fala yuhasabu xada man man gi kamapéynoo kamata xam tan yobal yo maanaam ba yem ca teg yoo xam ne leen lu ci nekk rek maanaam lu ci nekk rek jaroon na waaw jaroon na boo dee moom ñoo xam si moom daam yooyu rek lam cay mm. teg rek maanaam loolu benn bi doyoon na benn bi rek doyoon na benn doyoon màggal nga xam ne maanaam noonu ma boo xoolee seetantal dëgg de ni mu ko bi day xam ne kii lu ko ñor lu ko xam ne ñor ko waaye soo xoolee eh, defino itam fukkul man an faxe fii moom def sax nga xam lañ ca war def mm. <laughs> nee na bis bu bu màgg la ku ko màggal am nangam ni ku koy màggal nag lii nga ciy jël waaw lii nga ci def ah. maanaam na nga ci def léegi lii mm-hmm. euh, na nga bernde na nga togg ñam mm-hmm. na nga jàng na nga def nii nga xam ne maanaam boo xoolee ci fii ne euh, ñetti bi tënk na ci mm, gàmm solo mm-hmm. màggaay geeg day day day jamono ji day bis ni mu toll waaye euh, wax na ci itam maanaam ku ko ku ko def la la jural waaye wax na itam na nga wax lañ ci def yéen ci def hmm, yéen ci war a def maanaam fukkul mën an faxe fii moom des ma sat maa leen baxee di sarafe xam ne alal moom mooy lépp hmm, hmm. berdeg <laughs> la lu lu mu joxoon solo lu mu joxoon yitte la loo xam ne moom defe naa si imlaat daan si ndax moom moo ko daa defal boppam ñu moom ko daa defal boppam moo ko daa defal boppam ñeen màggal ko daa defal boppam Euh, yàlla na ah, foofu la ñuy tàbbee sax ñëw ci sëñ Abdou Lahad Bousso mm. Thierno. sëñ Abdou Lahad dégg nga euh, exposé bi nga xam ne. sëriñ Mame Balla Maxtaar Mbacke Maxtaar wax def na ko. Mm. ci gàmm lan mooy gàmm solo si mu am ak lu wax lu lu waral ñu war koo def. ñu war koo dundal guddi googu waaye nag yitte ji ko sëriñ bi joxoon ak ni mu ko mm. fonke loolu sax moo ñuy may nag ñu tàbbi ci nag euh, laaj ba xam. sëriñ bi nag dëgg-dëgg nii mu fonke gàmm ak li mu ci santaane ak li mu wax ne nañ ko ni defee ak buñ ko defee lañ cee jëlee. moom nu mu ko daan defee nag si Ablaye. jërëjëf sëñ Ablaye macha allah ci laaj bi am na solo lool jërëjëf sëñ Mame Balla ci xam-xam bi ak euh, laytaay gu leer gi ak njariñ lu bari li liñ ciy jëlee. Euh, sëñ Mame Balla euh, wax na ko léegi maanaam ni mu waxee màggaayu gàmm ak mbaaxam ak njariñ li amal jullit bi nga xam ne lépp ci ñun lay dellu ak euh, jikko yi ñu mën a jële ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir man ko cee roye waaye digal ndigle li ko sëriñ bi digle ñun taalibe yi ak def gi mu ko daa def loolu dafa doon loo xam ne euh, yooyu yëpp yi ci daje tax na euh, képp kuy jullit wala ngay ab soppeem wala nga di taalibeem war a fonk gàmm war ko war koo màggal mm. ni ko waxee dafa tënk niñ koy defee leeral ko ba noppi it wax njariñ li nga xam ne ki koy def moom la ciy am ba noppi it jàngale niñ koy defee xam nga yooyu yëpp dafa dafa dafa dafa dafa dafa doon lu daje ndax su fekkee dafa dafa wax dafa wax léegi eh, ihyaau mawlidil basir yaxmil hiyaala wa duyuur fihi sifaun li sudur xam nga loolu lu ama am solo la maanaa maanaa dundal guddi yonente bi sallallahu alayhi njariñ li am ci population bi ak ci xeet wi ak waaye ni muy def ni muy ni muy ni muy def xolub doomu aadama bi te mbir yi kat lépp mi ngi ci xol maanaam xol yi suñ laa laabee set rek lépp mën a jag loolu tax na moom moom moom sëriñ bi gàmmu suñ mambal fax bayit bu am solo léegi nii tax si muhu yanaatimu ala sawi taxaddumi démb maa ngi barki dem suñ bàkk abdourahman di ci leeral ci ne loolu soo ko déggee sëñ bi wax ko am na ñu koy firee ne eh, ñi jiitu daanañ ko màggal waaye mu ne dafay war ci ñi nga xam ne dañoo jiite. jiite mbooloo dañoo jiite mbooloo. kon loolu dafay firndeel ne kon ay maamam ak ay ay ay ay ay ay bokkam euh, daanañ dundal gàmmu moom laata muy muy ñëw. kon mm-hmm. kon am na fu mu ko royee. wax na ne maam Asawalo Mbakke daana gàmmu gàmmu yu rëy di ko dundal ci barab yi mu daa nekk niki noonu euh, ay waajuram waaye bi nga xamee ne nag dem na ba suñ maam Mor Anta Sali jóge fi. bu gàmm yooyu kon moom daana ci bokk mm-hmm. waaye bi fi sëñ Maam Mor Anta Sali jógee rek nga xam ne ci la gën a moom boppam mm-hmm. am na bayit wu wax wax ne dundal na guddi gàmm nga xam ne duñ jàpp ne fa ca la ko tàmbalee mm-hmm. waaye day dafa wax ne ahyaytu mawlidan nabi min asasi waxaadali fawxal munaa fi talsasi kon daal ahiyatu mawlidan nabi min assasine jooju du assasine ji la sëriñ bi njëkk a gàmm waaye daf ne dundal naa ci gàmm ci nekk ala sawi taxaddumi waaye lu ko jiitu doon na ànd ak ay baayam ak ay maamam di dundal gàmm gi waaw loolu laa jubloo wax maanaam loolu te te ahiya asas yi xam nga 1301 ci hijriya mhm. boo ko dee xool dana dana doon ay 1882 83 Ah, kon loolu date bu yàgg yàgg yàgg la te te te mënuñoo garanté la ci la tàmbali ci la tàmbali gàmm te loolu boobu daanaka yoonu murid day doo ko sosu kon musu ko bàyyi sëriñ bi tamit fonkoon na gàmmu fonk koo xam ne sax daana ko taalifal ay xasida yu bees ndax fi ne bi mu sañcee Mbàkke sañc Daaru Salaam juróom-ñaari ati Tuubaa yëpp am na ci xasida yi ngay gis muy xasida gàmm nga xam ne mag ñi daanañ ko yow ma mawlidi hazaak yu bari yëpp nga xam ne bu mhm, gàmm ñëwee daanaka daf koy wutal euh, xasida yu bees yu ñuy gàmmoo mhm. daanaka euh, lu mel ne ay ay raaya ak ay Amad Suleymaan ak ay ay xattaab ak yooyu yëpp daanaka xasiday gàmm la woon yoo xam daanaka ci bisu gàmm ko doon taalif ñu ko daa mag ñi daa ko daa ko daa ko daa ko jàng ci biir loolu tamit gis nañ ne sëriñ bi gàmm yim daa dundale boppam moom dafa am aw yoon woo xam ne ni la ko daa jaarale loolu tamit dafa am solo mat a taxaw ndax sëriñ bi jagle gi mu am ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam li ko yonente bi may ci boppam muy xaadimu rasul man li ma gëm mooy su may wax nag man en tant li ma gëm mooy dama kenn munu koo gën a xam wan yoon la ñuy màggalee yonente bi sallallahu alayhi wasallam mm. ba yonente bi di ci bég man loolu la gëm mooy mm. sëriñ bi moom ku ko gën a xam ni ni ñuy ni ñuy dàkke mbégum yonente bi moom jàpp naa ne amul loolu moo tax su fekkee ne moom wane ne melokaan wii nga xam ne noonu la ñuy gàmmoo en tant que ñun damay jàpp ne noona la te noonu lañ ko war a war a defee. te noonu a gën. te noonu ay jàpp na ne mooy gën moom. Mm-hmm. mooy li mooy li ma gëm man. Euh, loolu moo tax daayira Muxaddamatul Xidma ak daayira Rawdu Rayaahiin barab bii ñu nekk nga xam ne fi la xolu taalibe yi nekk muy jumaa ji ak Touba te sëriñ bi dundal fi guddi gàmm ba tey kon jaadu na ñu gëstu ni ko sëriñ bi daa defee. Mm-hmm. ñu di ko defee noonu ci barab bi ngir fépp fu ak tuubaa nekk ci biir réew mi ak ci bitim réew. bëri na ay Touba. parce que dem rek waa Madrid doon nañ téléphone fii di gëstu nit ñi gàmmoo bañ bañ bañ yónnee leen ko loolu loolu kon dafa jaadu kon ñu di ko ni ñu koy jëmmale it su gàmmu jubee nii nga def sëñ Ablaye euh, dafay am solo tamit ñu la ñu fàttali ni ko sëriñ bi daa defee sëriñ bi gëstu nañ ci ne dundal na guddi gàmm goo xam ne ci ceyeen ci gëstu bi ñu doon gëstu ki ko fekkee di sëriñ Modou bu Bousso moom ma Massamba Fati moom sëriñ bu bee wax na ne ànd na ak waajuram dem Ceyeen Jolof fekk gàmm goo xam ne sëriñ bi def na ko ci ati Ceyeen yi te booba xam nga ne Ceyeen ni mu demee woon mm-hmm. loolu loolu histoire euh, nettali na ni mu demee woon waaye tamit euh, ni ko tubaab yi daa gàllankoore ñu fa dem waaye ni mujjee fees dell te kenn mënu ci dara <coughs> ngir euh, tërbiye goo xam ne daana ko fa def nee na gàmm gi nettali na sëriñ bi def na ko fa dal moom fekk na ne sëriñ bi woona mbooloo mi soññ leen ngir ñu màggal guddi gi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu mel ne dañ koo laaj léegi nan la ko doon defee mu ne bi mu ñëwee li njëkk a gis ne def na ko dal mooy fukki kaamil ak ñaar jàngalu na ko hmm. na ko mu daal ne li ci gën a yéeme mooy sëriñ bi li muy def ci gàmmu lépp daf koo méngale ak euh, douze rabiul awal hmm. maanaa xam nga gàmmu mi ngi am ci fukkeelu guddi ak ñaar ci weeru rabiul awal hmm. kon li tax mu jàngalu fukki kaamil ak ñaar am na lu tax biñ noppee tamit nee na sëriñ bi teg na ñetti kuréel indi tamit ñoo xam ne ñooy jàng xasida gi ñu wax barsan jiyu xasida gu barkeel la goo xam ne sagam sëriñ bi daana ko jàng rek dañuy jàpp ne xasida googu moom barsan jiyu waaw xasida la goo xam ne dafay wone jaar-jaar yonent bi sallallahu ci laata ak gën ak àddinaam mm-hmm. ba ni mu fi jógee mm-hmm. waaw maanaam day nettalu histoire yonte bi xam nga suñu mam balla wax na léegi ne gàmm mooy mm-hmm. nettali histoire yonte bi ngir ñu roy mm-hmm. ak fàttaliku ko ndax bis bi mu gënee àddina la bar barsan nag dafa doon ci xasida yi nga xam ne yu yu barkeel la yu am leer la moo tax xam naa sëriñ bi daa ko boole ci yim daa jàng kon daana jël ñoo xam ne ñooy dëbbe barsan ji moom aw yoon tamit wu mu ko daa wu ko daa defee boo xam ne eh, dañuy jàng buntu barsan ji yu tàmbali ko suñ ko tàmbalee mu am ñetti kuréel yuñ teg kuréelu jës bu ak mooy bu ak mu xaddimaat su ko defee buñ tàmbalee jàng buntu barsan ji yu benn bunt kuréelu jës bu jël jàng fukki bayit ak ñaar mooy bu jël jàng fukki bayit ak ñaar mu xaddimaat jël jàng fukki bayit ak waaye nag ñu di ko defee ci daaj yi nga xam ne mooy daaji cosaan yi loolu tamit dafa mat am solo ci ñi nga xam ne ñooy roy gàmmu fii waaye sëñ bi fukki fukk ak ñaar yooyu nga wax it am na solo de ndax day dellusiwaat fukki ak ñaar waaw waaye ñetti xasida yi nga wax itam. Ah. muy jës boog mu wa mawaay boog mu yëpp bu ci nekk fukk ak ñaar. bu ci nekk dama ngay dàq. dafa dëppoo ak fu fukkeelu guddi ak ñaar. Ah. même barsan jiw bi sax su ñëwee ba agsi ci bunt bi fi mu taxaw muy atrillahu ma xabrawul karim bi harfin sasid min salaatin wa taslim fukk ak ñaar lañ koy wax fukki yoon ak ñaar lañ koy wax. di waxaat allahuma salli wa sallim wa barik alayhi fukki yoon ak ñaar fukki yoon ak ñaar macha allah. nga xam ne loolu. lu yéeme la loo xam ne hmm. maanaa maanaa lu ñuy yéemee moom euh, kenn kenn kenn mënu ko mënu ko takk léegi nag ci biir loolu dangay gis ne kon euh, jàng daaji barsan ji moom yi ko mag ñi daa jànge da gis ñu bu ñu jàngee rajas lay doon waaye da gis bu ñëwee ci atrilahuma atrilahuma qabrawul karim bi arfin sasin min salatin wa taslim da ngay gis ne daaj bi ñuy koy daajee ci ci ci ci ci jumaa ji daaj boobu la ko mag ñi daa daaj nga xam ne sëñ bi daaj boobu la daa déglu muy lu am solo mm-hmm. bu dee jës bu tamit daaju sëñ ma sàmba bu cosaan bi tamit ñi koy jàng moom la ñu war a daaj maanaam maanaam buñ bëggee roy sëriñ bi duñ ci duñ ko soppi ndax daaj yi bëri na hmm. muy alhamdulil haqil man kawnu li yayyabin halal kitabil mustabin majami iniyami hmm. daaj boobu moom lañ war a daaje jës hmm. jàng ci fukki bayit ak ñaar ñu ñëw ci mooy bu moom it daaj bu diib bi mooy daaj bi nga xam ne moom moom lañ moom lañ ko war a daaj ginnaaw boo ci agsee muy bismil ilahi yan la maana i hay mm-hmm. bu dee mooy bu daaj boobu mooy bi nga xam ne. moom la sëriñ bi sëriñ bi daana ko daaj lu ci guddi gàmm. Mm-hmm. nga ñëw ci mu muxaddimaat moom it nga xam ne moom it fukki bayit ak ñaar la muy way naka laa xulaqin azimin gi bu ci nekk sax moom dafa tënk boppam ndax tey fi ne barsan boo xoolee bunt yi muxaddimaat lay tollal ndax jës bu ak mooy bu mu ak mooy bu muxaddimaat moo leen ëpp xam ne tey soo jeexalee barsan rek soo jeexalee muxaddimaat dana fekk jës bu ak mooy bu jeex nañ nga xam ne lay kon ku koy natt ci barsan bi nga mën a yor nattale ko ak muxaddimaat muxaddimaat tamit dangay gis ne sëriñ bi daaj bi mu ci daa daaj lu mooy kon xëy na daaj boobu damay jàpp ne dafa gën a neex yonente bi sallallahu alayhi wasallam moo tax xam naa mu ko daa daaj lu ci guddi gam muy wasixtu bi rabbil har sisil juudi wal hafi maal mustafa wallahu li muxlidun safi daaj boobu la ci daaj ci muxaddimaat moom it ñu jàng ci fukki bayt ak ñaar moo am tamit ay sew saw yi ci am ci buñ ñëwee nag ba agsi ci gis nga fi ne li ci yéeme sañu Ablaay mooy gis nga bunt yi ngay jàng ci barsan soo ñëwee ba agsi ci fi mu tollool ci jës bu dañuy niroo hmm. dañuy tolloo gis nga bu agsee fa bi nga xam ne tey nag bu waxee leeru yonente bi waaj waajtaay wax ko ba noppi ba ñëw nag fi yonente bi di feeñee jamono hmm. muy bunt bu yéeme bu daw yaram hmm. nga xam ne yonente bi nag mi ngi ñëw di gane si àddina sëriñ bi dafa santaane nag bu ñu agsee foofu nañ ñëpp jóg. moo waral taxawaay boobu moo waral taxawaay bi ngay gis noonu. muy assalaamu alayka yaa xayra xalqillah mm-hmm. ñu ne sallallahu alayhi wa sallam. mbooloo mépp mm-hmm. aw. macha muy tolluwaay boo xam ne sëñ bi lu ko gën a yéeme ci dundal mm-hmm. ruu man gis moom. foofu sëriñ bi dafay santaane ñu jóg màggal yonante bi sallallahu alayhi jóg taxaw ca kaw. teeru kiy gane àddina teeru kiy gane àddina. ndax foofu borom barsan da koy bàkk ci yu bëri asalaamaaleyka ya nabiyallah asalaamaaleyka ya xayra xalqillah asalaamaaleyka ya safial umma yu mel noonu lu lu gudd lay doon loo xam ne daf koy def ñu taxaw mbooloo mépp taxaw di wax sallallahu alayhi wa sallam ba mu jeex ñu doog a toog gis nga bu ñu noppee bu waa jës bu daajee hmm. laylatu mawlidi nabi lañu lañ loolu lay tollal lay tollal macha allah laylatu mawlidi nabi lay tollal laylatu max yu riya bi laylatu max yu taxa bi wa toxari si taxasu bi nga xam ne moom it mi ngi wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi ngi mi ngi feeñ di wax guddi gi mm-hmm. li am mm-hmm. da ngay gis ne tamit su demee ba ci mooy bu foofu lay toll ndax mooy xam nga sëriñ bi du tudd tur yonent bi sallallahu alayhi wasallam da koy junj rek da koy junj yémi junj day niroog euh, melokaan yooyu bu dee aussi voilà bu dee bu dee muxaddimaat tamit nga xam ne jikko yi la ciy gën a la ciy gën a wax dafay méngoo ak loolu boo ba ci xarbaax yi tamit ci barsan day tolloog fi muy waxee xarbaax yi ci jës bu nga xam ne loolu kon barkeelu xasiday sëriñ bi ak barsan bi mu tànn dafay ràbbaloo di kañ yonente bi sallallahu alayhi wa ci ñetti melo yu bokkul loolu nag sëriñ bi moom moo xam li mu ci jublu kon ku bëgg a roy gàmm gi ñu gàmmoo fii te mooy ni sëriñ bi doon gàmmoo melokaan wii ma wax lay doon waaye nag mu ànd ak yii hmm. yii yii mënu cee ñàkk ndax sëriñ boobu sëñ Modou Khari dafa nettali ne ci biir njàng mi sëriñ bi ci boppam gis na ne dem na day daal di dem di jël ay mban di sikki mbannum sikki mu mag di ñëw di ko sotti ñuy jàng. sikki mooy parfum la boo xam ne sëriñ bi bëggoon na ko. daan ko jëfandikoo lu bari pour ñu ko xam bu doon léegi mën nga ne mooy parfum marque yi gën a seer. maanaam parfum yi gën a seer parfum sëñ bii moom li lim daa jëfandikoo wala mu di ko jox boromam wala mu di ko li gën lay doon. Mm-hmm. lépp li gën lay doon yooyu daana ko indi di ko sotti ñiy jàng. ci taxaw di ko sottil boppam moom ci boppam de di leen ko sotti di dem tamit di indi ay bernde. Mm-hmm. ay ataaya ay meew ay café ak ay gato di ko jox ñiy jàng. faman taaman hayya ah. liman lahu xat qaraa. Mm-hmm. mu bajjilan fa xabaa mu ne nettali na am na benn yoon boo xam ne gis na ko moom sëriñ bi mu jël ak sendal dem ci fuur bi duy ko ba mu fees di ko gàddul boppam di ko cakk-cakkee maanaam nanguwul kenn sax def tànk neen boole ci allahu nee na ñëw di ko xëpp ñuy jàng hmm. ànd ak aal ju bat ju rëy rëy moom nee na sax parfum yi ñu ko doon sotti gis na ne mbub soloon booba ci toogoon bokk ci ñuy jàng dem na ba gaalam xar ba ba buum ba maanaam saa su ko génnee ci gaalam buum ba ba muy xar xeetu parfum bi dañu est kon lii ma wax tamit day ànd ci biir gàmmu gi maanaam noonu la ko sëriñ bi daa daa bokk na ci tamit li lu ama am njariñ loo xam ne sëriñ bi daana ko def sëñ Ablaay ci gàmm muy gàmm njariñ yi dafa bari sëñ Maam Balla wax na ko léegi gis nga ni mii euh, fule ku am alal hmm. ku ca def sa alal kullu man anfaqa yi mawladin musarrafin maalan bi xayri sarafin wala bi qadri dirhami fa innahu kaman hadar yawma unaynin wa sabar wa yawma badrin wa nasar xol loolu sëñ bi nga xam ne ki ci def dërëmam waaw mook saxaaba ya doon xare badar ñoo tolloo daraja ñoo tolloo dayoo sëñ bi gàmm bari na doole de sëñ bi tamit danaa jël ndox ñu teg ko ci biir kuréel bi ñu jànge maanaa ci biir ci digg kuréel bi ñuy jàng suñ noppee ñoom ñëpp ñu digal leen ñu tifli ca ndox ma suñ tubaa ku daa def mm-hmm. nag wa in xalaa maa in quri mawlidi xayril basari fa surbu bil mutahari yakufu kaydal marxami yunawirul xalba sharaab min saalikal maa bil mujaab wal xalba yuxyi duuna wa waxan saqa in yaxtami sëñ bi xoolal ndeke tey sëñ bi nit ki ndox mi ñuy jëfandikoo lu ñu royee ci sëriñ bi la sëriñ Tuubaa moo ko daa def waaye xoolal njariñ yi mu wax ci ndox ma ku ko jëfandikoo maanaa suñ jëlee ndox te aj ci digg fi ñuy gàmm bu ñu noppee ñu ñu def ci nee na maanaam képp ku naan ndox mooma sab xol yu nawirul xalba sarab wal xalba yu yi day dund te dootu faat waaw jeex na waaye nag wa an saqa in nag maanaam dalay aar ci texee di ci ragg ci ragg ak texee deg lépp maanaa tey kon dafay mel ne kon nit ki nga xam ne am na aajo wala mu amuk wéradi wala mu am lu mu bëgg na bàyyi ba ñuy gàmmu rek mu ñëw fexee am ca ndox ma lu ko gën ci ci saafara gisuma ko moo tax loolu tamit képp kuy gàmm nga bàyyi ko xel muy ndoxum guddi gàmm lu ko gën a yéeme te ëpp ko njariñ gisuma ko sëñ bi laa ndeketee njëriñul gàmmu gàmmu gàmmu xamuñu ko gàmmu sëñ bi diggante gàmmu ak sëñ bi moom mu ne su ko waxtaan ci ay minutes ak njariñ maanaam dafa bëri ay njariñ loolu tax na kon daayira Muxaddamatul Xidma ak daayira Rawdu Rayaahiin di ko dundale noonu ni ko sëriñ bi daa dundale nga xam ne tamit barab yi mu daa nekk yépp noonu la ko daa def fii ne ci mujj atam yi mujj yi njaareem daana fa gàmm-gàmm yu rëy yoo xam ne maanaa am na ci at yoo xam ne wax nañ ne suñu isaa jenn ay paqueti sen seng la jënd maanaam tisaare ko ci penc mi di ci def ay ñam ngir nit ñi di ñëw di jëfandiku. est-ce que. maanaam ngir berndeel nit ñi. Mm-hmm. loolu nag moo tax yii ma wax muy berndeel ruu gi ak jëmm ndax yonent bi solo alayhi bii feeñ ci guddi googu la ñuy teral lañuy ñuy la teral ñi nga xam ne ñoo koy ñoo koy màggal muy li yéeme yéeme loo xam ne njariñ yi bëri na lool lool na kenn mënu koo mënees koo takk mënees koo takk waaye itam am na fu am solo fu ma bëgg ñu ñëw fi mm-hmm. mooy euh, malgré njariñ yi am na solo ak ni ko sëriñ bi doon defee mm-hmm. waaye ñu bàyyi xel yi nga xam ne doon na ko ci wattandikulu ngir ñu jéem koo wattandiku. ci ci gàmm ga uh-huh. ci lu mel na ab jaxasoog yooyu. Uh-huh. ndax dafa mel ni dafa dafa ko junj sax dafa wax ne. tanzimuhu bi sunnati. Uh-huh. bi sunnati. nañ ko màggal te teg ko ci sunna. waaw waaw sëñ moo ñu jàngaloon nañu tanzimuhu bi sunnati bu daa woote gàmmu nee na sunna mooy nga teg ko ci yoon wi diine santaane. mooy mooy mooy mooy nga màggal ko ci yoon ni ko yàlla santaane kuy màggal mbir. mooy nga fexe ba. laabal sa xol ba noppiit it yéene ba noppiit indi ay teggin ba noppi it moytug jaxasoo ba noppi sol col ko gu yiw moo xam góor wala jigéen loolu dafa wax ne soo ko defee noonu yaquudunaa lil jannati maanaam loolu moom ku ko defee noonu defeen wu sell woowu mooy tabbi àjjana ngay def mooy sag pay kon loolu lu yéeme la moo tax kon képp kuy ñëw ci gàmm gi di gàmmu si moo xam da nga ànd ak sa njaboot moo xam loo mën a def nanga sàmmoonte ak teggit yi nga xam ne mooy tax nga jot tiyaaba ji mooy bul def lenn lu lu lu bokkut ak bul jaxasoo bul sol lu yiwut na nga fexe ba nekk ci dara maanaam environnement bii nga xam ne ci la ñuy dundee dundee la gàmm loolu nag moom feeñ na ci Touba fi ñuy gàmmoo ñun ndax loolu moom nit ñi ñoo koy ñoo la koy wax maanaam maanaam yëg-yëg bi nga xam ne ruu yi danañ koy am ci guddi gàmm fii ci Touba lu yéeme la. parce que damay seetlu lool. waaw ah. ay gàmm yi weesu. da ngay gis ay junni junni nit toog. waaye ñëpp dañ daan tekk ñëpp delloo seen bopp ci seen borom. ñëpp da toog di di di def lu mel ne xalwatu ci seen. jëmm ñi mën a jàng ñi ngay jàng ku ci mënta jàng sax yaa ngi yor sa kurus waaye yaa ngi ànd ak teewlu jubli sa boroom loolu muy yëg-yëg bu am solo. waaw loolu moom moom dafa mel ne eh, delloo njukkal koo xam ne. Euh, Serigne Touba am na ko ci digganteem ak yonente bi la rek sallallahu alayhi wa sallam ndax fi ne euh, Touba fii penc mi jàpp naa ne man ni nit ñi di génne guddi gàmm ak ni ñu amee jot ak ni ñu jëlee seen temps ba noppi dañuy toog ba bët set te gis ku ñàkk a nekk ci dara yombul yombul surtout jigéen ñi sax day mel na ñoo gën a fonk gàmm nga xam ne am na heure yoo xam ne daanaka doo mën a maîtriser nit ñi ngir mbooloo mu bari loolu nag da ko jar lool ndax lii ma wax ndax njariñ yu bari jàpp naa ne kon képp ku ci ñëw war nga war nga jikkoo melokaan yooyu ba nga xam ne yi sëriñ bi di wax te di ko moytulu ci barab bi nga nga am melokaan yu mel noonu ba tax sa ndab dara du ci rax mm-hmm. maanaam nga am ndab lu sell loo xam ne danga ko duy mu doon sab yóbbal ba man laa jariñ ba gàmmu di dellusiwaat waaye tamit nga roy jikko yi mm-hmm. ndax xam nga ne bi ma waxee nii sëriñ bi daa gàmmoo ni mu ko daa dundale bi daayira Moukhaddamatoul Khidma ak Rawdu Rayaahiin ñëwee tamit ñu gis ne yooyu yëpp euh, boo ko dee xool barsan ak gis ba mooy ba mu xaddimaat xam li ñuy wax day aaje nga xam tuuti ci arab mm-hmm. moo tax xam nga ne ak yi yëpp dañuy seet euh, benn tomb boo xam ne dañ koy laytaayeele gàmm gi muy seet ci jikko yonent bi sallallahu alayhi benn ñu jël ko ngir nit ki roy ko xam nga daaw ñuy waxtaanoon ci diggante yonent bi sallallahu alayhi ak ay asaabam ay mm-hmm. saxaabam xam ne ren jii tamit ñi ngi war a waxtaan ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ak nim daa jëflanteeg ñi nga xam ne dañoo wuute woon ak moom. loolu tamit ay xalaat ñi wuute woon ay xalaat ay xalaat. loolu tamit lu am am solo la loo xam ne sëñ bi bind la boo xam ne nekk nañ ci jamonoom. boobu jamono da koo soxla moom jamono da koo soxla. ndax njiit loo xam ne jikko ji nga yor ki la ji ki la contre ak ki lay tagg ñoom nga ci yemale maanaam faw jikko jooju nga leen jox si Mame Balla dafa wax léegi ne jikkoom ju rafet dugal nañu bëri ci lislaam mm-hmm. kon loolu tomb bu ama am solo la boo xam ne euh, daayira bi daayira Ruuhin bu koy def ak Muxaddamatul Xidma ngir bëgg tamit ñenn ñi tamit am benn bind bu ñu bind boo xam ne dañ koy jële ci dañ koy jikko ndax jikko yonent bi sallallahu alayhi xam ne mënees na ko yóbbaloo te bu jamono soxla lay doon waaw ndax yooyu loolu ñuy waxtaane boo demee ci jës bu da nga ko ci fekk mhm. bi a xam mën a xam ne nag seen seen dégg-dégg ci wàllu arab demeewut noona mhm. bañ mën a jariñu ci melokaanu yonent bi alayhi salaam loolu loolu am solo la dafa bokk ci li kon ñuy roy gàmm tamit loolu am na ci solo ñu seet kenn koo xam ne dana seet ci jës bu doonte ay bayit <coughs> yoo xam ne da ciy tàgg yonente bi sallallahu alayhi ñu firil ko nit ñi euh, wax ay jikkoom tamit am na solo doon te benn baat nga ciy jël dana doon sab yóbbal euh, suñu Ablaye macha allah waaw jërëjëf sëñ Ablaye euh, yaakaar naa ne waxtu wi sax moo xat mhm. waaye liñ bëggoon a développé sax ci fànn kooku gën naa yaatu loolu mhm. ndax ni ko waxee waxtaane yenent bi salaay salaam waxtaane gàmm xajul sax ci ay ay ay ay weer ay bis waxuma laa ay ay waxtu wala ay minute ndax ni ko sëñ Mame Balla woon rek mooy bis yëpp ni ko sëriñ bi jàppoon mooy bis yëpp bisi gàmm la waaye sëñ Mame Balla dégg nga sëñ ni mu leeralee sëriñ bi ni mu daan gàmmoo te nettali boobu nga xam ne mi ngi ko jëlee ci suñu maam jooju sëñ Mor Xari Bousso yàlla na ko yàlla yokk ngërëm ak yërmande dégg nga ni mu ko ni mu ko décrire ni mu ko waxee muy loo xamante ni tey bu daayira Rawdu Rayaahiin ak daayira Muxaddamatul Xidma àndee sëriñ bi jox leen ndigal ñuy gàmmoo ci barab bu sell bii di jumaay Tuubaa ñu dem gëstu ji ne ko sëriñ bi daan defee ah ca ca ci gëstu bu wér ba di ko def bëgg itam mu doon loo xam ne fu mu nekk ci Sénégal ci àddina bi war a roy defin waaw ni ko sëñ Blaat bu sa Thierno waxee sëriñ bi lépp lu mu tànn ba def ko rek. Uh-huh. loola mooy la gën. Uh-huh. loola mooy la gën kon bu ko daayira Rawdu Rayaahiin jëlee ak mu muxaddamatul xidma di ko def jàpp naa ne kon loolu lu lu lu ñëpp war a bàyyi xel bu baax baax la uh-huh. ba pare itam roy ko defe ko na. aw defe na aw defe na uh, jërëjëf jërëjëf sëñ Abdoulaye jërëjëf uh, sëñ Abdou Lahad ci leer yu am solo yi mu indi surtout ci naka la sëriñ bi doon gàmmoo te mooy ni ñu war a gàmmoo itam nag. ndax uh, moom moom dafa yàgg gàmmu. te ni mu ko waxee léegi maanaam dafa am tawféex li sëñ li sëñ mu taxanal dañoo am tawféex ci sëñ ba sëñ bi dafa dafa am tawféex ci borom am taw am tawféex ci yonent bi mm-hmm. nee na ni ma mel ci yàlla ak mel ci yonent bi nee na loolu ngëneel yàlla la waaye du lu ñuy fàggu mm-hmm. kaw nii xëy yi man li nabi wal kitaab fadul min illaahi laysa iktisab laysa iktisab nee na ma ni ma mel ci yàlla mel ci loolu ngëneel suñu bon waaye du lu ñuy lu ñuy fàggu man da cee am tawféex ci ñoom Euh, alhamdulilah nag euh, sëñ Ibrahima mën na sant bu yàlla bu yàlla bu baax nag ndax mel na ni euh, nit ñi ñi ngi gën a xam sëriñ bi. ñoom ñi nga xam ne sama borom ñoom la def ñu ne ci barab bi te def ci yitte jiñ ci def biñ ci génn am na ci amee ndigal mel na ne mi ngi tàmbalee yaatu. Mm-hmm. diggante njàngum xasida meek ak ak ak ak ak gàmmu geeg ak fulku bi xeet yooyu moom mi ngi ko tàmbalee yaatu ay barab yu baree bari ci réew mi. Mm-hmm. léegi nag bi dëkk yu ndaw sax dangay gis ne maanaam maanaam noonu lañ koy taxawe ndax nit ñi bëgg nañu baax surtout sëriñ bi moom maanaam euh, dafa dafa maanaam suñu boom da ko defal tawféex ci am njàngaleem dafa barkeel maanaam xalimam daa barkeel daam barkeel kayit man léppam daa barkeel ay waxam barkeel ak njabootam barkeel ay barabam barkeel euh, maanaam euh, lu mu lu mu def lu ne wala lu mu bëgg a def lu ne waxtu jotee day mel day yomb ci nit ñi yomb goo xam ne day day day jéggi fii ne boo xoolee nouvelle technologie ba jumtukaay bi da def moom lañ ko defaroon mhm. da nga naan dama leen wax ne sëñ bi bu fi nekkoon da ngeen ne tey jii télévision a mag ci àdduna bi mhm. dana ko am dana am jumtukaay xarale dana ci am yu mag yu mhm. sophistiqué mu nekkoon a def moom mooy samp jumtukaay boo xam day tiim àdduna bépp satellite bu tiim àdduna bi di di di di jàllale téeb borom bi kon wet googu moom euh, mën nañ cee dal xel te gën cee soññe gën cee ñaaxe mm-hmm. euh, ci ndax ma mag ñi boo xoolee mag ñi am na dañ ñaax ñi ñiy gàmmoog ñiy raas déem xam nga loolu baat bu yàgg la mm-hmm. mag ñi noonu lañ ko tudde woon mm-hmm. maanaam maanaam ñiy raas déem mooy ñi nga xam ne ñu ngi gàmm waaye dañuy gàmmoo du nañu war a gàmmoo rek waaw ndax it nag loolu nag luñ seetlu woon la nag oh, ndax nii nii sëñ Blaan waxee ne sëñ bi ni la jàngalee gàmm oh. ba tax muy tasaaroo léegi ku xool gàmm yu njëkkee wax dëgg yàlla oh. euh, daa daan xaw a doy waar daal ras di ma amoon na ci te suñu mag ñi itam xam nga dañoo amoon yërmande te xam am méthodologie mm-hmm. parce que l'islam bi mu fi ñëw tadrijeen la fi ñëwee maanaam maanaam yu bëree bëri mm-hmm. surtout surtout charia charia mm-hmm. euh, xam nga ñun tamit nekk na fi lu yàgg di woote ci ngëm yàlla waaye santut nit ñuy bëri mm-hmm. terewu leen yenn tam mm-hmm. sàngara mi ci gën na garaw bi mu koy terele fi tere fi mu ne mm-hmm. tere na ko ñetti étape ñetti étape yoo xam ne da koy tere maanaam maam lépp maam mag ñi itam noonu la ñu doxee daal da nga gis ci sunu barab yii wala ci suñu bërëb ay pratiques yoo xam nit ñi dañ koy def daanaka du dëppoo sax ñu war def dëgg-dëgg waaye boo leen waxee dañ def nañ kanam sëñ diw wala def kanam maam diw di ko ci dara. te fekk na maam diw moom boobu maanaam jamono jañ tolloon la waaw contexte ba moom moo laajutoon. ndax ñoom liñ daa bëgg bu ñu alaa ko bari nga ñëw julli seen ginnaaw. waaye boo julli di gees toog yooyu seen yoon ci. l'essentiel comme yaa ngi julli rek. inna salaat tanhaa anil fahshaa'i wal munkar dañ dem ba bàyyi la ñu maanaam mm-hmm. maanaam euh, yi. maqaasid yi waaw. ñoom yooyu lañ doon tànn mm-hmm. euh, parce que fi nit ñi toll ci ci ci ci i xalaat boo demee sëñ bi mi ngi ko wax ci euh, minan di wax ne sëriñ moom ku mu saa ñëw ci moom li mu njëkk a mooy bu la xiiree ci farata yi ba nga kii rek la muy def muy dindi ak taayal si da liggéey loolu liggéey doole hmm. ndax booba nee na nit ñi taayal géeg riir gi maanaam seen seen aloo sorewut noonu hmm. moo taxoon yu baree bari ñoom ñu doon ci def xamoon nañ ni boo gisee ñi leen bëgg jam sax leen di jam ci bëgg jam ci yooyu te fekk na ñoom li tax ñu doon def tasaaxul ci yooyu mooy contexte ya la woon boobu nit ñi ay dañuy doog a bees ci yëf yi am na ci ñoo xam ne boo ci bëggee dox ak ñoom ndax diine dafa dis dañuy yokkat wala ñu bàyyi wala nee na inna haada diina matinun fa awxiloo fiihi bi rifq nee na diine ji bu doonu buum ak bar la buum bu dëgër dëgër mm-hmm. bu ngeen ciy tënk na ngeen yolomal tënk bi mm-hmm. am na noo ciy tënke boo tuddoo dox wala mm-hmm. <laughs> li nga xëy xëy waaw bëggutoon euh, waaw loolu moo indi woon yooyu waaye nag comme fi jamono toll léegi nit ñaa ngi ci commencé yeewu wax dëgg yàlla jumtukaay yi mate na ko bërëb ñu ber soxna yi fee ber góor yi fee loolu yomb na léegi mhm. bernde yi dañ ci yëpp mën nañ ko jëfandikoo anam goo xam ne léegi bernde yi moom bu njëkk ñu daa jëf bernde yi bu ñu ko daa def daanaka fañ ko doon defee boo noppee waaye léegi mën nañ ko jëfandikoo ci noo xam ne anam yëpp daal mën na mm, liñ soxla ci ci ci ci ci ci ci ci bernde dañ ko waaye dañ soxla ci ci yar ak teggin ak mm. ci yiw ak ci luñ sox rek mën na cee waaye li daal mooy nañu xam ni euh, ak jaamu yàlla gàmmu jaamu yàlla la dañ ca yaakaar tuyaaba yi ëllëg ak njariñu tay nag yu bare mm-hmm. bare bare bare njariñ ak mm-hmm. njariñ alaxira mm-hmm. te ci jamono soxla na ko lool fi mu ne jamono lëndëm na jaxasoo na bari ay yëf nun ñi nga xam ni nag leer googu wàcce ci borom bi di leeral kaw suuf ci ci suñu borom dañoo def teew ñu bokk ci nañu jàpp ni ay roy lañu war a doon fu ne ci lépp ku di jullit ku nekk rek roy waay nga war a doon ci lépp ci fépp su ko defee bu ñu ko yóbbaloo nag day tax bu bis bi ñëwee ak foo ay man de di ko taxawee rek nga mën koo taxawee ci ni mu gën a rafet ni mu gën a mate ndax foo koy defee rek na nga xam ni ay ay nga fa gone yaa ngay filmer di di tasaare mm. euh, surtout ça ñu mm. bàyyi ko xel lool lool lool ndax mm. léegi fu waay man de ne di gàmm nga ne ci biirum néeg nga ne ci mbedd foo teew ngir nangam tax la faa teew euh, ay jumtukaay fi mën nañ koo jël tasaare ko ci àdduna bépp ni lii de bi sàngam lañ ko jëlee woon ci barab sàngam yëpp nit ñi mën koy man mën nañ koy seet léegi daal maanaam yàlla dafa dafa dafa dafa xarañ dafa xarañ bi nga xamee ne dem na ba jikko yu yàqu yeeg yu baree bari ñëw daa indi jumtukaay yoo xam ne mën naa saafara loolu mm-hmm. yooyu yëpp na nit ñi bàyyi xel ci ci ci ci ci ci bis yooyu man surtout ci man ndaje yooyu mm-hmm. di ñaan surom egg nañu jàmm lu am solo lu am solo nga sëñ Mame Balla junj na ko sax mm-hmm. ci biir wax ji muy nag euh, lu mel ne sédd ñam yeeg yooyu nga xam ne lu ñu lu ñu lu ñu lu ñu fonk ci gàmm gi la sëriñ bi wax na ko fa man temps amana yaa tudd ko sànq mm-hmm. léegi nag ci sedd séddalinu ñam yooyu tam am na lu ci daayira Muxaddamatul Xidma prévoir mm-hmm. euh, ci ay minutes yu gàtt ñi nga xam ne dañ fi indi ay ci jumaa ji mm-hmm. loolu tam am na ay directive ay yu ñu war jox jërëjëf waa xam nga euh, lu aju ci wàllu mbooloo mi daje fii moom ak raj-rajloo bi du ñàkk euh, ñu teg ay méthodes organisation yoo xam ne yu leer lay doon te loolu ku xam daayira Muxaddamatul Xidma it xam ne loolu tamit euh, am na ci ak xereñteef gu mat sëkk loolu dafay tàmbali ci ba ni ñuy dundale guddi ji nga xam ne dafay da da mën naa ci occasionné waale leer laale programme bi mm-hmm. nga xam ne dafay ñëw ba ci wàllu njàng mi ni ma waxee fukki kaamil ak ñaar noonu tamit lay àndee ak ay diiwaan mm-hmm. kon am na commission boo xam ne li seen liggéey mooy séddale ay jukki ndax dañuy jàng diiwaanul quraaniya mm-hmm. diiwaanul salawaat diiwaanul amdah ak muxaddimatul xidma nga xam ne yooyu yëpp sëriñ bi da ciy tàgg yonente bi di julli ci moom ay façon julli yu kenn xamul kenn mënut a tàgg yooyu am na kuréel yoo xam ne lii seen liggéey mooy di ko séddale nga xam ne képp koo xam ne yaa ngi fi daal mën ngaa bañ a toog loxoy neen ñooñ tamit euh, commission organisation dana dagg ay yoon yu ñuy jaar yoo xam ne ñii séddale ci jigéen ñi danañ fay mën a jaar ñii séddale ci góor ñi danañ fay mën a jaar mm-hmm. kon loolu loolu mooy mooy seen liggéey su ko defee nga xam ne tamit fii barab bi ñuy jàngee muy ñetti kuréel yi fi ñu nekk ak barsan bi fi ñu nekk. mu doon foo xam ne tamit danañ leen mën a may benn espace ñu mën a toog nga xam ne di dëbbe. mbooloo mi ci seen ginnaaw di mën a aw aktarillahuma yi mu doon taar boo xam ne bu yéeme lay doon comme ni nga koy ni ñu koy faral di gis loolu tamit euh, ñu ngi ciy soññ ñëpp ngir ñu bañ a xëccoo ak ñi nga xam ne ñooy nos jataay bi benn la ci. boo ñëwee tamit ci wàllu euh, ñam yi nga xam ne li ci sëriñ bi wax ci ngëneel tax na it bokk julli ak bokk taalibe yi. ñam yu ne la ñuy togg di ko indi ci penc loolu tamit wut nañ kuréel boo xam ne lii seen liggéey mooy séddale ay ñam nga xam ne ñooñu tamit boo ñëwee indi fii lu ñuy jëfandikoo moo xam lu ñu lekk la wala lu ñu naan moo xam lu tàng wala lu sedd. bi sukkarin aw laxami waaw bi sukkarin aw laxami <laughs> waaw waaw moo xam yëf yi yu mën a doon daal moom ci yi nga xam ne euh, bokki daw kundaay yi danañ ci xër mm. soo ñëwee boo boo ko tegee ci loxo yi daayira Muxaddamatul Xidma danañ la ko séddaleel walis nga di ko seddaleel sa bopp kafe yi di tuuru ci karo bi nit ñi di ci jaar muy taqal seen yére wala nga bëggoon tiyaaba ba far jëlee ci lor jëlee ci lor ndax xam nga loolu àq lay doon tey si boo tuurooy kafe wala nga tuur ñam woo xam ne tey nit ki mën naa sol lu yéreem yu baax ñëw di gàmmu si tarxiis ay yéreem taq ci ko baax da nga koy ameel àq te wut nañ ay ndaw yoo xam ne boo leen ko joxee mën naa dem ci nit ñi te loolu du ci am kon loolu it ñu ngi ci ñu ngi ciy bàyyi xel Euh, jumtuwaay yi ñam yooyu bi ñuy ndee ñu jox ko kuréelu mu Moukhaddamatoul ma ñu seddale ko ni ki noonu tamit ci wàllu xat-xatloo bi maanaam bunt yi ñu bañ a xëccoo kenn ku nekk mën nga dugg ci jumaa ji toog te bañ a buuxante maanaam tey bu ñuy dugg mën nañoo def ay sàppe rang dugg ndànk soo gisee bunt bi boo buy xat mooy ñàkk mayante gi lay doon foofu it am nay ay ndaw yi ñu teg ci bunt yëpp nga xam ni jigéen ñi ñooy orienté nit ñi jigéen ñi fii la ñuy war a jaar góor ñi fii la ñuy war a jaar am na ñoo xam ne fii lañuy toog am ñooñu tamit ñuy labirante ak ñoom ngir xam ne guddi gi tamit dafa doon guddi goo xam ne ñëpp seen xol dafa war a dafa war a set ci ci labirante ngir jaar ci organisation ñu ko waxee woon léegi kenn du wër euh, sàggan ba ndabam di tax déer déer déer ba ndabam di tax loolu ko tamit ñu bàyyi ko xel beneen anam bi tamit mooy taskatu xibaar yi ñi nga xam ne ñoo ci aju ñooñu tamit daayira bi xam nga naka jekk cellule communication dana fi nekk soo bëggee ñëw xam programme bi nga xam ne moom la ñu gàmmoo tey soo dékkee sa micro si Ablaye dana la ko mën a tënkal leeral la programme bi nu mu demee ak lii xew lépp nga xam ko moo gën nga ñëw di defal reportage sa bopp la ngay laaj koo xam ne amu ci xam-xam kon loolu it am na ndaw yi fi nekk ngir ngir loolu am na borom xam-xam yi fi nekk tamit yoo xam ne soo bëggee xam soloy gàmmu ak ñu fàttali la di ko sëriñ bi daa dundale ak ni ñu koy defee fii ñu man la koo leeral mm-hmm. euh, loolu lu am solo la kon ñi nga xam ne dañuy yor ay jumtuwaay yu mel noonu ñu moytu di film jaxasoo góor ak jigéen wala ñuy nekk di sinap seen bopp maanaam ñëwee fii ngir toilette mm-hmm. wala nga ñëw fii ngir war a jariñu mm-hmm. yor sab téléphone ba tax li nga war a am ci tiyaaba téléphone bi xaj la ko loolu tamit ñu ngi ciy labiré bokk yi kon sëñ Ablaye bala ñu jeexal ñu fàttali programme bi programme dese ci minute bëriwul programme bi maanaa incha allahu rabbi suñ jullee gee ba noppi rek muy vingt et danañu tàmbali njàng bi muy euh, euh, benn euh, kiy njëkk a tàmbali ubbi njàngum xasida bi njàngum alxuraan moo koy ubbi muy ginnaaw gee muy fukk kaamil ñaari kuréel bi seddale dañu taxaw mm-hmm. waaye sëñ Seex Gay Mayib mooy tàmbali vingt et mm-hmm. njàngum xasida moo xam ne daf koy tàmbali su noppee kuréelu Muxaddamatul Xidma tànk yi jël ba vingt deux heures et ñu jox sëñ boole mbay mu jàng ba vingt trois heures pile nag waxtaan wi ci lay tàmbali une heure benn waxtu lañ ko jagleel euh, ren ni ma ko junjalee yi tam bi ñu tomb bi ñuy waxtaanee mooy yonente bi sallallahu alayhi nan la daa jëflanteeg ak ñi nga xam ne dañuy wuute woon ak moom maanaam ñi nga xam ne daal ànduñu woon ak moom moom mm-hmm. daa jëflanteeg ñoom ki koy def mooy suñ Murtada si la abo abo Marème suñ abo Talha mooy euh, moo koy taqdimal muy waxtaan wu aw am solo bu ñu demee nag ba miin wi zéro nag ci la ñu tàmbali nag njàngum barsan ak lii ma doon nettali léegi bu defee gàmmu gi dëgg nag tàmbali. Mm-hmm. ci biir foofu nag eh, barsan bi ki koy jiite xam ngeen ne mooy sëriñ Ahmadul wi mm-hmm. mi nga xam ne moo jiite daayira Daawud Rayahin ak sëriñ bu Buso imam mi nga xam ne mooy président daayira Muxadimatul Xidma mm-hmm. waaye ak sëriñ Abibullahi Jatara ñoom ñett ñooy ñooy jiite barsan bi su ko defee ñetti kuréel yi nga xam ne ñoo ñoo ñoo koy seq ak ñoom di kuréel daayira Muxaddamatul Xidma muy jës bu ak mooy bu ak muxaddimaat mm-hmm. eh, ànd ak ñoom gàmmu bi noonu lay def ne incha allah ba bët set eh, sëriñ bi Cheikh Mahamadul Muntaxa xam nga ne at yi yëpp wax yàlla moo daa ñëw ci waxtu woowu nag fajar jotee eh, daal di ñaanal mbooloo mi wala tamit su amul ngant ñu ngi koy séentu ñu ngi koy séentu dana ko defee nam ko daa defee incha allah kon yàlla ñu yàlla def ñu àgg ci ak jàmm te dundal ko nañ ko daa defee te suñu boroom nangul ñu ah. te ñu uh, dara ci jëf ji bañ a ba dara bañ cee yàqu bi barakatu xaadim rasul asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh jërëjëf jërëjëf sëñ Abdou Lahad Bousso Thierno jërëjëf sëriñ Maam Balla Mbacké Mokhtar yaakaar naa mbokk yi doon seetaan tey jotaay bi gën nañoo jëriñu nag ci gàmmu nag lu lu ëpp solo lañ ci liñ ci daan jëriñoo uh, laytaay bi ñu sëñ Maam defal ci uh, lan mooy gàmmu ak solo si mu am ak ni ko sëriñ bi fonke woon nga ñëwal ci ni ko sëriñ bi daan dundale ci lu leer nañ loo xam ne ak lañ ci mën a jële ci ay njariñ ak programme bi nga xamante ni moom la daairatu rawdu rayaahin ak muxaddamatul xidma tëral fas yéene ko gàmmoo fii ci jumaytu ba yaakaar naa ne bu ci cat dugut gàmm gu mucc ayib lay doon koo xam ne mën nañ cee jëlee ay bind yu am solo waaye mën nañ cee jëlee ay njariñ yu yu yoo xam ne du dàkk du jeex ba faw kon nag euh, ñu ngi soññ mbokki jullit yeeg mbokki taalibe yi ñëw yëpp ñu sàmmoonte ak ndigal yi nga xamante ni moom la daari Muxaddamatul Xidma teg ngir ñu war koo gàmmoo ci jumaa ji waaye itam ñu bëgg itam fépp fu ab mu nekk ci euh, àddina bi mu roy Euh, defin waaw ngir ne mooy defin wi gën ndax li sëriñ bi tànn mooy li li gën. kon euh, ñu ngi leen di sant bu baax a baax waa sëñ Mame Balla. taw euh, li si doon mooy lu ci defal na ko def pas-pas. Mhm. ndax innamal a'maalu binniyaati. macha mhm. allah macha allah innamaa likulli imri'in maa nawaa maanaam kuy jógee sa kër ku ne jàpp ne da nga jàmm sëriñ bi daan def. loo ko defal mu ne loo ci fas. loo ci fas waaw kon pas-pas rek ci la ñuy raw. incha allah muy doon ñu yeesal a baax daal bu ñuy ñëw nañu yeesal euh, loolu am na solo kon dégg ngeen ko ni mu ko waxee na ñu yeesal pas-pas yi te lu ñuy def rek ñu am ci yéene ju sell incha allah kon mbokk yi ñu doon. mënoon sant ay mbokk yoo xam ne tamit. Euh, sëñ Ablaye dafay am solo waaw ci ci ci kàddu yu gàtt. waaw ci kàddu yu gàtt tàggoo naa bu bi sax waaye. Euh, bokk yoo xam ne tamit euh, bari nañ dañuy jàpp ngir lu lu dundal baas bi. xam mhm. ci bis bi. Mhm. tamit dafa am mbokk moo xam ne sunu mbokk sëñ Basiru Xaadim Awa Ba mhm. ak benn xaritam boo xam ne sëriñ Moustapha Saw jaadu na it bu ñu toogee ci jataay yu mel nii ñu tudd leen seeral leen seen jëf xam nga dañoo nekk ci waxtu nawet. te xam nga ne gàmm gi xajul ci biir jumaa ji penc bi rek la xaj gis nga baas bii nga xam ne ñu ngi ko fi def wax dëgg yàlla bi nga xam ne daayira Muxaddamatul Xidma Euh, mi ngi mi ngi mi ngi wut euh, ay moyens ak rawdu yuñ defe baas boo xam ne danañ ci mën a gàmm te bu tawee wala mu ngelaw dara du du sikk xam nga ne ñii fii gàmmu si ñëpp sax kenn mun leen a wutal lu leen aar ci loolu waaye nag fi nga xam ne mooy xol bi moom mm. gàmm gi di wëy daaw def nañ ko ren jii tamit allah indi baas bu. su ma fàttalikoo daaw. daaw euh, euh, baas bi euh, noonu la ko Serigne Bassirou Mbacke maa koy nuyu bu baax a baax. di ko ziar mhm. ci taxawaayam ak jàppam ci daayira Moukhaddamatoul Khidma yëbalewu ko ci lii rek. Mhm. lépp lu mu xam ne soxla si jumaa jee rek. Mhm. na ko yitteem. loolu itam ñu ngi ko ci sant bu baax a baax. waaye gis nga daaw bi bi mu bi mu yëgee ne Moukhaddamatoul Khidma mi ngi dox jéego yi. la daal di contacter mbokkam moomu. ngir mu taxaw ci gis nga taw bu bu bu bari bi mu taw daaw. te te taxul gàmmu gi arrêté mais lépp doon na continuer kon nag loolu itam ku ko def ah, jar na jar na jar na jaajëf bu baax kullu man an faqa fi an faqa waaw moo tax euh, ñooñu tamit ñu ngi leen di sant ci taxawaay bu mel noonu mm. ak bokk yi yëpp muy kilifa diine yi rawatina sañu am satu mu sëriñ Sohaybu ak bokk yi nga xam ne daal euh, buñ bu gàmm gi ñëwee danañ ci dugal génn seen alal dugal seen alal def loolu nag ki ci jiitu nag mooy ki jiite liggéey bi ki nga xam ne moom mooy jëwri ni ki ñu liggéeyal muy Cheikh Mouhamadou Mountakha xam nga ne loxoom ak jëfam ci melokaan yëpp mooy jiitu ci gàmm gi mhm. kon moom it yàlla ko fi yàlla yàggal amiin te wéral ko bi barakati xaadimu rasul ci am laay daal loolu kon ñooñu itam ñu jara sant la ñu jara itam jaajëfal lañ mhm. sëriñ Bara Gueye duñ ko fàtte moom itam ah, mhm. taxaw ci ci ci ci ah, ci ci gàmm gi la Bara Gueye moom itam ah. ku ku ci jàmbaare la waaw alaaji Souley Diagne itam moom itam moom itam ku ci ku ci ak ñeneen mbokk ñi fi indi ay ñam ñëpp mënuñ leen a waaye bu ñu tuddee ñi rek dinañ yóbbaale ñi ciy des mm-hmm. kon ñoom ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax a baax baax di leen gërëm di ñaan jëf jooju ñuy jëf euh, ci ci gàmm gi te Serigne Touba rek tax yàlla na leen ko Serigne Touba nangul fay leen ci lu kawe seen jortu kon mbokk ñu doon seetaan euh, loolu mooy jotaay bi nga xamante nii indiloon nañ leen ko ngir waajale ko bis bi ñu dëgmal muy bis bi ñuy fàttaliku garek àddina Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jotaay bi ñu ko doon amale fii ci jumaay Touba àndoon ci ak daairatu Rawdu Rayaahin ñu yebaloon fii suñu mbokk Serigne Mame Balla Mbacké Mokhtar di borom xam-xam bu mag dégg ngeen li mu leeral ci am solo gàmm seq ko itam ak daayira Muxaddamatul Xidma ñu yebaloon fi sëriñ Abdou Lahad Bousso Thierno mi nga xam ne moo jiite commission culturelle bu daayira Muxaddamatul Xidma dégg ngeen li mu leeral ci sëriñ bi ni mu daan gàmmoo ak li li nga xamante ni moom lañ ci mën a jànge ci ay bind ak programme bi nga xam ne moom lañ tëral ngir fas yéene ko defee fii ci jumaay Tuubaa ci ndigalul Cheikh Mouhamadul Mountakha yàlla na ko fi suñu boroom yàggal loolu te kon ñi ngi leen di euh, tàggu foofu di yëkkati jotaay bi di ñaan suñu borom subhaanahu wa taala àggalañ ci bis bi ak jàmm te lépp luñ ci def euh, ci gàmm gi yéen a ju sell suñu borom fay ñu ko ci barkeb boroom guddi gi ak barkeb ki koy liggéeyal kon jóge nañ ci màggal gi jëm ci gàmm gi minal xaddimi ilal maxdoomi jërë ngeen jëf wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.